ki nga moy euh euh Diop Mamadou Diop bu isek ak xale bu bi ñuy wax euh, Diena Balde ma di leen fàttali ñun Kéwoulo depuis décembre 2019 lan amone information bi waaye puisque dañu xalaatoon dafa nekkon dans le cadre privé bëgguñu ci won wax waaye tay ji gannaaw bu mu yeggee sur la voie publique euh, suñu devoir la ñu mën ci apporter quelques éclaircissements parce que dafa di suñu suñu devoir en tant que journaliste d'investigation ñu avons di xool lan moo lal ci ginnaaw yenn yi nga ko sénégalais euh, mu euh, il y a trois jours ni dafa plainte au niveau de la brigade des mœurs bu commissariat central bu Dakar mi nga xam dañu toppee woon kii di pour euh, détournement de mineur viol répété suivi de grossesse waaye gannaaw bi ko commissariat central moom demu fa dafa activer une plainte bo xamné mom daf ko déposer devant la division de la cybercriminalité La police bi nga xamné face dafa nek en face euh, mosquée omarienne y wax division de la de la lutte contre la cybercriminalité lan lay topé xalé yi néna la euh, diffusion de données personnelles le chantage néna séquestration manam dañ ko dougal ci nek tëj ka fa euh, ñun Kéwoulo gannaaw biñ doon suivre dossier bi bu yàgg wax naa leen depuis décembre lañu ñu nekk ci dossier bi mais bëgguñu ci woon wax ma bëgg leen apporter yan condition parce que nit ñi ñëpp dégg nañu dañoo jël ay film monsieur euh, Diop diffuser ko mais nit ñi xamuñu ban façon film la ak naka la amee ma fàttali leen ni euh, film boobu le 31 décembre 2019 la ko Dieyna Ali Biba ak bu ndaw tourner condition yi mooy Dieynaba Balde gannaaw bi mu toogee pendant plus de six mois ah non après six mois de grossesse mënatul jot monsieur Diop dafa daal ak ay mbokkam ñu commencé sol seen dàll jéem dem waxtaanee njëkk ak monsieur Diop xamal ko ni li ko dal mën a nekk ndogal yàlla la waaye moom dafa di kilifa te coow li warul a génn Sénégal ñu koy dégg ñu ne ko li ñu koy ñaan benn la na reconnaître paternité wu xale bi ñu xool naka la ñuy régler problème bi mu wax ñëpp parce que jot naa si ñu ci bare ñi nga xam ne ay xaritam la ñu ñoo xam ne intervenir nañu woon ci dossier bi moom xamal na ni il fait l'objet de chantage dañ koy chanteloo te complot la boo xam ne aawam bi moo ko lal jóge na ci aaw bi na ñaareel baaka lal jóge na ci aaw bi wax na ba ne wali Seck moo lal moo nekk ci ginnaaw complot li donc pratiquement euh, monsieur Seck képp ku monsieur Diop képp ku mu andalul pour moom war nga nekk ci complot bi nga xam ne pour ñu ñu ñu tuumaal ko la euh, booba ak léegi nag pratiquement c'était impossible pour raisonnaloo Monsieur Diop mais pire dafa wax nit yi ni moom dafa am feebar feebar bi tax na tey moom mënatul jëflante dara ak jigéen wax jooju nag choqué na Dieyna ba nee na ak ay xaritam il faut ñu xool piège bi nga xam ne mën nañ ko lal pour ñu jàpp monsieur monsieur Diop pour mu avouer ni mom moo ma ëmbal ci noonu la ba daal di waxtaanee ak ki nga xam ne mooy Abiba Abiba benn xaritam la Abiba ànd ci ak euh, jël rendez-vous ak monsieur Diop parce que ni ñu ko defee si très simple euh, man dama defi ni tey xale yi dañ leen war a dañ leen war a féliciter mais waruñu leen condamner parce que le seul moyen bi ñu mënoon a am pour monsieur Diop ñu avoué la ko ni moom mooy bàyyi xale bi ku jigéen ki ëmb moo di li ko xale yi talal parce que li ko mooy. dañ doon di xaar ay test ADN pour xool ndax moom mooy pap wala nekkul pap li xale yi def mooy euh, Abiba mu mu envoyé message SMS monsieur job ne ko dañ ma boole woon ak yow bu bëgg léegi maa ngi toog dégluwuma la parce que euh, Dieyna moo ko jox numéro monsieur job parce que ñëpp xam nañu mbëggum mbëggum jigéen bi nga xam ne moo ne ci moom mais surtout li nga xam ne ay xale yu ndaw bi mu ko envoyé message bi monsieur job daf ko tontu. ne ko non xawma yow yaay kan jeena daal di jël par whatsapp yónne ko photom bi mu gisee ni xale ba euh, abibaay daal di ko yónnee photom par whatsapp bi mu gisee ni xale ba rafet na mu jël contact ak moom waxtaan ak moom wax xale bi wax ko fu mu nekk xale bi wax ko fan la nekk mu ñëw le 30 décembre 2019 jël ko ci buntu këram Skat urbam doxantu ak moom dellu si wàcc ak moom daal di jël xaalis lu mat 20 000 francs may ko xale bi ne ko nag dinaa la woowaat ci diggante bi euh, jeena Abiba ak ki ni wax bu ndaw ak freeru Diena bu tudd Ali ñu daal di mettre en benn stratégie naka la ñuy def pour nu piéger ko ci noonu la le 31 décembre 2019 monsieur Diop woo euh, Abiba ne ko maa ngi lay seet si mais manque de peau pour luy bu muy ñëw yegg si fekk ñeeti xale yooyu yëpp ñu ngi woon ci koñ bi toog di ko xaar noonu la ñëwee yéeg si kër gi nga xam ne fa la Abiba nekk.

keuf loxolu jeena parce que neew mom du góor neew mom meuntul mënatul ak jigen dara te nee mom moom du doxaankat wedd na ko mais fimu nek ni ñu koy en flagrant délit bi ko yi filmé ci film bobu mu téye ci film bi ñu ngi koy gis carrément mu téye loxol euh, ki nga xam ne mooy euh, jeena dugal ko ci neeg bi négocier ak mom pour nakane nañu film bi buñ ko diffuser fenn nañ ko bàyyi nañ ko sutural mom dina jël jouer ay responsable dina jël ay responsabilité boba ak légui nak ku ne jëm na waxtaan ak mom pour que mu revenir mu ñëw li nga xam ne mooy responsabilité mu joué ko mu bañ loolu moo waral xale yi ñu daal di jël vidéo boobu ñu filmé ñu partagé ko seen biir famille seen biir famille defuñu ko sur la voie publique defuñu ko ci réseaux sociaux defuñu ko ci dara léegi nag euh, euh, voilà condition yi nga xam ne ci la ñu filmé monsieur Diop bi koy filmé dafa simeeku woon sol Sabador mu euh, sol tëdd ci lal bi muuru mbàjj donc gannaaw bi inf vidéo boobu génnee moom euh, il a tout fait pour que ñu étouffer coow li ba nu le 20 février dernier la ñu ne ci porté porter plainte gannaaw aussi parce que wax na ba sonn laaj xale pour nous pour nous supprimer cette vidéo bi ñu ne ko duñ ko supprimer parce que vidéo boobu rek ba mënoon tax mu reconnaître paternité officiellement bu xale bi euh, bi mu ko bañee nous moo waral tey jii euh, ñu yegg parce que entre temps am na membre famille bi ñoo xam ne jot nañ ci vidéo bi xalaat nañ ni ñooñu ñoo ko war a mën a mettre à la disposition de quelques personnes sur la sur la sur l' espace public avant ñoo retirer vidéo bi mais gis nañu tey euh, police Sénégal euh, enquête tuñu ci est ce que euh, monsieur Diop moo détourné mineur ba ëmbal ko mais lu ñuy ñuy enquête mooy kan moo tax moo diffuser vidéo bi ak lu tax ñu diffuser ko xale nag keroog démb bu ñu jàkkaarloo ak enquêteurs yi. Qui euh, di Ali surtout xamal na ni mom moko filmé mais daf ko partagé ci bir ay membre famille am euh, nek nañ fa ba tard dans la nuit police dañu décidé wu ni dañ len di arrêter. mais euh, ci njàmbaaru ki nga xamné modi maître Clédor Ciré Ly wax deug yalla nañ ko tirer le chapeau bi coow li commencé ba légui mo taxaw bàyyoo xalé yi di ànd ak ñoom fu nek taxna au dernier moment la nuit libéré nañ len tay ji stratégie wu maître Diop euh, stratégie wu euh, Diop bu ISEC modi di lan ak ay avocat am li xamal ni moy xalé bu jigen bi amul 17 euh, ans waye wessuna lolo loolu gis nañ ni kuréel ndal la bo xamné ne bëgg na ko utiliser parce que bu mu mënee prouver ni xalé bu jigen bi amna 20 ans moy détournement de mineur délit détournement de mineur bi nga xamné ne porté nañ ko plainte bi taxone sax ñu garder ko à vue dootu dootu ko mëna exercer bu leen bu euh, euh, toute la journée Nous ñu ngi diffuser les réseaux sociaux Né, ne en fait elle a plus de 20 ans Ouais, jusqu'à preuve du contraire du Ben deug benn kayitu juddu rek la Dieynaba am te ci kayitu juddu bobu mu ngi juddu le 20 février 2003 bi nga xamné extrait de naissance bu bu bu bu authentique bo xamné tribunal bu Kolda moko def lan moy porox ndol bi lan mooy euh, petit piège bi nga xamné ñom xalat nañ ko parce que Djenaba est né en 2003, mais déclaration effective de naissance, acte, nous l'avons fait en 2011. Donc, nous avons plus que tardé, nous avons nous pour nous, nous fin fait. Bon, si nous avons nous avons fait Colda, qui région Bobo, puisque nous avons la porosité de l'état civil, pour dire certificat de naissance, nous avons fait un certificat de naissance, nous avons fait un certificat de naissance, nous avons fait un certificat de naissance, euh, euh, jusqu'à présent Ben acte de naissance encore me am est né le 20 février 2003 euh, loolu mooy 17 ans la am donc je yem ak précision ak dossier bi mu dossier décider au-delà de bind article kase dama de vidéo pour m'expliquer expliquer sénégalais yi li nga dossier maa leen di jaajëfal Babacar Touré laa tudd euh, maay directeur de bu Kéwoulo Info Kéwoulo Info di journal d' investigation jërëjëf.